gars yi dafa am ci gëm naa mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ziar di leen baalu ak ginnaaw bi ñu baaloo ñëpp ak nag si li nga xam moom mooy tabaski bi ñu génn di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal réew mi ak àdduna àdduna wërngal képp tey nag ganu kër gi am mbégte dalal ndaanaan si Dakar Info point net kooku nag doomu cees la wala bokk gone cees gi la lañ ko mën tuddee di nag taasukat di kebatukat damay wax sax rappeur la parce que je l'appelle l'homme au rime rime moom macha allah yàlla may na ko ko kooku nag mooy Dame Sène Dame seen di borom Thiès tey mooy sunu gan ñu koy jaajëfal Baye Fall bi laa ko tuddee maa ngi lay nuyu di la jaajëfal ñu bàyyi la ak suñu mbokk internet yi gannaaw bi ñu la baaloo ak di la baalaax. Ah, waaw asalaamaaleykum àdduna bi yëpp asalaamaaleykum yéen waa monde entier asalaamaaleykum Didier Makhou. Euh, maa ngi nuyu senegal gépp nuyu àdduna bi yëpp ndax yéen fu ne leen nit di seetaanee may baal ak ñëpp di baal ak ñëpp di wax naan yàlla nañu fekk ay déwéni déwéni amiin yaa rabbi di nuyu sama soppe yëpp nag soppe mën a ne di sant yàlla bu baax julli ci yonente bu tele sallallahu alayhi wa sallam ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Saliou Touré di ko ñaan mu yàgg fi loolu te sama yaay yàlla na fi yàgg ba fekk samay milliards di jama ko di la xamal ni mhm. damay wax naa yàlla nu yàlla dàqal liñ dara yàqal amiin yàlla nu yàlla nàqal daal ñu koy yàqal mhm. yàlla nu yàlla làq fa yàq àggul amiin ndax ku ne xam nga ni dee du jaas waaye mhm. comme paaka bu ñu daas bu ne xaas fekk laak say laas jaru ngay wut paas ndax du yóbbu benn bagage boo amee ñaanu xaas sax dana lay miraas nga ni groupe Rasoul. groupe Rasoul ñoom wane nañ ni dee am na. ndeysaan ndax ku dee lay suul. cee loolu cee groupe Rasoul. ma kooku mooy Dame Sène l'homme au comme ni ma la ko waxee rek Dame ñu ngi lay jaajëfal mais kii yaa ngi commencé màgg ah. waaw moom xam nga rek kenn mën leen a téye màgg ndax xam nga rek mooy da ngay ree batas ndax nit foog muy laal ndox. ndeysaan. ndax fi mu ne nii bu doonu ndox. Mm. doo dox. kon karaw gi. Mm. <laughs> muy laal ndox de tey jóg foog mu dox. <laughs> voilà ñu ngi lay jaajëfal quand même euh, tey daam euh, li ma lay njëkk laaj moom mooy euh, si lan nga nekk. waaw na nga xaw a raar tuuti. léeg-léeg nga génn rek yëngal. fokk dëkk daal daal daal di daal di rasuwaat. si lan nga nekk waaw waaw maanaam. Mhm. bu ñu sant yàlla wat ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci liggéey ñu ngi ci loo xam ni maanaam du ñu wax mhm. mais saa suñu paree. Mhm. nit ñi xam ne kii da doon liggéey ndax maanaam. sorxo sorxo du ko jar liggéey dafa gën sorxo sorxo ndax tey jii ku liggéeyul bu pay jotee boo demee naan da ngay fayeeku mhm. di nga rang ba sonn fekk ay jàmbur ngay rangal ndeysaan doo fay waaw doo fayu mukk eh, daam eh, macha allah eh, daam seet ñëpp ko xam mhm. dafa international sax lañuy ñuy wax te daam amul album billaay wallaay yàlla la ko taxaw génn ko album te xoolal loolu loolu man loolu yéem na ma loolu yàlla rek ko mën ku génneegul album mel ni génn nga ay album yi album rek a foog suñu borom rek ko mën ndax booy xool nit mënul dara nit xamul dara yàlla rek ko mën mhm. ndax yàlla kenn du moom moom mi la jox xel mi ngay xalaatee mhm. ndax li naan àdduna amul solo boo ko déggee boo bootal ko lu mu sol tailleur ba ngay sonal ndax baatu mu mën a dul dagg mhm. ndax àdduna loo fi def defit la bañ defet moo tax nit ñi def te am na ñoo xam kenn du leen tingom di yéesi ngoom ndax boo amul kàttan da nga yor loo àttan man bu dëkk bi ne sero du nelaw fu am ngelaw hmm? si du ma nelaw fu ngelaw ndax du ma sol beere ba pare di weere am na fu ma nit ñi teg foo xam ne hmm. tey ji même bu ma amul album hmm. maa ngi leen jox loo xam ne mel ni ni album ci ñoom mais nag album mooy passeport artiste bi ndax ku ñu ramasse carte d'identité carte d'identité kuy tukki doo yóbbu passeport dëgg bu amul passeport doo tukki di doo tukki kon nag maanaam album boobu wax laay bañ ndax àdduna moom léegi dangay wax ñii di coppati ñii di ñii di këf ñii di ñii di def leneen ak leneen mais nag suñu borom noppi na lépp loo ci def rek teg ko si yi sunu borom te gëm ni yàlla lu jot mu génne ko sa diggante ak sëñ Saliou Touré waaw kooku day sama wasila di sama yaakaar tey ak ëllëg doon koo xam ni nag maanaam nit mënu koo xam man yàllaa ma dimbali ndax lim wax naan mm-hmm. bu ñu yàlla ndarte atta ci yërmandeem bu ñu yeboo dem ca agence ba jënd suñu billet safara te xam ne fa lañ jëm ndeysaan liñ ciy sauvé mooy yàlla boole ñu ay wasila yu baax ñu dimbali ñu ndax ñun rek bu ñu yàlla toppee ci suñuy jëf mm-hmm. ak suñuy kalang-kalang mm-hmm. non kon àjjana duñ ko sax jege mais comme ay jullit lañu am nañ yaakaar am ngëm-ngëm ba tax suñu borom comme moom boo ko tooñee mu jéggal la nga boo ko baalu mu jëggal la mm-hmm. nit rek du jéggal moroom nitam loolu la ñuy fay yàggal ëllëg moo ñu sonal ndax tey su ma la amee leen mille francs mm-hmm. nga weer ma ci mbedd mi mm-hmm. dëgg man ma amee les mille francs bañ laa fay ba nga weer ma dëgg léegi ñaari atte yooyu doo xam nan lay demee dëgg la man mi la amel tey amaana nit mën na leb bëgg a faytu du am dëgg la ki mu leb bu amul xel moomu ndax ñi war a faj dof yi bu ñu gënee dof dof yi fan la dof yi jëm. non musiba musiba am bu amul xel moomu. maanaam neneen lay demee li ma wax naa nit du nit ñun moo tax nga nit du nit. ma ne ku sa xel dul nit doo nit. Hmm. kon xel dafa war nit xel dafa war xel mooy nit. Hmm. parce que bu xel jógee ci yow nit. Hmm. Serigne Saliou Touré nag dafa doon koo xam juróomi doomu Sëñ Touba ñoo ko tànn. indi ko Thiès ni ko damaa bëgg nga àggale waa Thiès ca yàlla. Serigne Saliou Touré. Serigne Abdou Lahat moo ko indi Thiès. ni ko dañu bëgg nga àggale waa Thiès sa yàlla. loolu duñ ko wax ku ndaw. dëgg mu doon koo xam nag Serigne Saliou Mbacke moo ko yar tuddee ko boppam. macha allah muy làmminam di ay tànkam. Mhm. mooy digle naan na leen bàyyi jëw tey julli te bàyyi mooy. ci laa waxee woon naan billaay yow àdduna maa la mere waa lu tax doo ma tere. ñu ne jàppal ma ne yàlla tere àddunaa ko bëri fere. ñàkk kersa mën a wor te kenn du sëgg for. attan na laa coor nga jaare fa noor ñu sàngee lay xool ngay xalaati bor. Mhm. am lu njaboot gi yor kii yaa ko lor yaa def leen ko ni ko Saliou Touré def mu noppal leen bu ngeen ko def nii mu ko def mu xëy wor leen dañuy bàyyi wane wu guré ndax ku dee doo sañse ma ne àdduna ak am palais musuma dégg ku audience armée waaye bés a ngi ñëw hmm. borom pale bi recevoir ñu ma ne kii garde almairie mata dimbali ndax c'est un gardien qui n'a pas de salaire te léeg nga téen seen étoile polaire hmm. man nañ laxasu jëm ca yàlla balaa ñu ñoo laxas jox yàlla mujjug jamono nag la ñu ne ak zaman dafa yegsi bu nit ki feebaratee ma ne dem nañ seeti ko bu nit ki amee dëj ma ne dem nañ jaale ji ku ci am mbokk mu wàcc liggéey dee fa dem di siyaar bu jàgg jàkka ji noddatee dawal nga jàpp julli nañ jox yàlla cër bu ñu julli di fay téléphone yi mhm. ndax justice kuy la ak moom door taal sa téléphone doomu aadama nag war na bàyyi xel ci ëllëg ne dee dina ñëw xamoo kañ la nan la ak fan la dugal la ci morgu sàng la saañ la sàng la lu weex muur la sërub alxuraan tëral la ci jàgg la lu mhm. gis nga maam yàlla mhm. ci li la neex mu mën laa def lu ko neex bu ku ko dégg du ko neex moom rek ngay ñaan ay xéewal may la xéewal gu ànd ak naqar goo dul tal am ku ko jàppee ndaw tal ma ne tey lëndamaa yu bàmmeel coupure générale ne silence ñëpp noppi nag yàlla rek ko mën soo ko demal almeere ñu fa tëdd kenn waxtaan kenn du waxtaan mais nelawu àdduna bi nag ay nelawu entraînement la mais ku dee nelaw ba doyal disque <laughs> d'or amul am na ballon door amul am na jémbe d'or amul médaille d'or amul kóori d'or amul mais pourquoi pas kaamil door mu ku say cër mat ku ne na nga sant yàlla boo mu dox jàdd lee gis ku ne kuy raam te nit la comme yow ngay wax daje ku muuma mhm. ngay dégg daje ku tëx ngay gis daje ku ñu womma mhm. nga yor lu baree bari génn gis ku yoru ñaari dërëm nga xam yàlla rek koy buur ma ne baleen dem ci dëj di concours jooy te bu sarax sa ñëwee yéen daa ko solu moom père li ngay laaj ngir jàq ji nga la def ko ci jàq ji da ngeen bàyyi xëccoon noonu te bu ñu julli di xool sàppe yi mais xula bërëbu fowukaay ñoom ñëpp pare mm-hmm. waaye xool jàkk yi ci réew mi benn pare gu ci benn pare saa yoo xëy dégg pay naan lu waaye mën ci jàkka ji lu waaye mën ci kaamil ji lu waaye mën ci <laughs> nga xool ci booy mbaal yi mm-hmm. toile ni nga dugg sangu ba set xeeñ lu neex taal sa oto dem rang dagg tikki dugg fecc ba ñàkk may sa xaas te doo ci am yàlla mm-hmm. waxtu julli jot nga kiris koos da nga sa kam naan c'est pas méchant man si c'est très méchant ndax yàlla moo sàkk di di descend addunaa ah. mm-hmm. ngi nii genn wàll kër foo ci dem ñu ngi ci bind attention chien méchant ma ne chien yi méchant wu ñu waaye nit ñee soxor ñetta ngi ibbi compte te wóor ko ne dina gont mm-hmm. di sa biir compte yaa koy mën a xont ci ba nga fi ne mm-hmm. boo xasee ba làqu dootoo xam ne ne sa compte compte bu gën a wóor mooy bàmmeel nañ wut luñ fa def balaa ñu faa def te ñoo yemale fii eh, émission bi émission bi li doon émission jar na émission euh, enfin euh, Dame euh, lu tax ma la laaj la Serigne Saliou Touré mooy am na ñi nga xam wax nga dañuy yeggali si yàlla c'est-à-dire ñu indiwaat di ñu teg si yoonu siraatul mustaqim comme ni ñu ko waxee mais euh, tey jëmm ju nekk missionnaire la tey li ngay def nii muy musique di taasu di kebetu voilà di du rap du rime comme ni mu koy waxee yaa ngi si jaamu yàlla tey waxaloon nga ak jigéen ñi euh, nga waxoon leen bët nañ seen bakkan yi bët na seen kii moo tax ñu noos ak yu kenn xamul nga dugg si yooyu euh, ngay def tey ñëwaat nga si jigéen ñi mm-hmm. ndax boobu njëkk bi amoon nga si problème Euh, li ko li ko nit ñuy dundee mooy mm-hmm. euh, man ragaluma problème mm-hmm. mais na fekk ma nekk ci dëgg wala ma wax loo xam ni am na sens wala ma am solo ndax dangay xool tey jii jigéen ñi mm-hmm. ku ku dal seen kaw ñu ñëw song la xosi la ah, waaw ñoom duñu bàyyi ñoom yaa ngi dégg ndax li fi am moo tax mbëggee la fi maa bëgg sama yaay ku sopp sëriñ diw ñett ñi bu ñu ko génnewoon ci way ñu bëri bàyyi. dëgg léegi nag man dama ñëw nekk beneen nit koo xam ne dama am leneen lu ma indi. ñëw ma pour xas jigéen ñi déedéet. dama ñëw pour wax ak jigéen ñi. alerté te dóor wut buntu la. Mhm. damay wax ak jigéen ñi di wax ak góor ñi di wax mag ñi di wax ak ndaw ñi. Mhm. man loolu laa ñëwee. ñëw ma pour ay dee ko yëngal mu saf rek kafe boo ko tegee fi def sa suukar boo yëngal muy saf. da nga ni xaaral fii ñu dégg intro bi parce que da nga ni fii góor ñi nañu lan nañu yeewu. sama ndey góor ñii nelaw yeewu leen boo may këpp fakk na dëkk bi ak périk jaggit jaggit seen kanam yi na ràccul daxit bu ñu paccal lingom ku ci puudar tax a rafet booy ñàkk di mel ni naawe mbaa yéet wala mañok mbaa suub wala jaxatu amul ndox ma sëlam leen nga xool ku ci monte en ñu takk la boo demoon te ñu fase la euh, bii moom jigéen du la ko baal dañ ma koy baal <laughs> xam lu tax ñu ma koy baal waaw maanaam loolu boo gisee <laughs> uh-huh. dafa am lu tax ma wax loolu mm-hmm. parce que man mm-hmm. am naa jabar sama yaay jigéen la mm-hmm. sama am naa ay sœur dañuy puudaru dañuy teg cheveux dañuy teg greffe dañuy maanaam dañuy make-up yëpp kon lii du ay xas ndax sama jabar day puudaru nga wax ko sax mooy xam nga make-up xam nga affaire te lu garaaw mooy bu la yàlla bindee am na kum la booleel par force boo warul am jëkkër doo am jëkkër. dëgg boo waree am da am. dëgg kon jarul changer ay kanam ak nangam ak sangam ndax lii léeg am na góor ñoo xam loolu lañ leen trompé dañuy fekk benn booy fee rek. Mhm. mu def ay affaire am ci kan bi peinture noonu teg benn cheveux bu gudd nii xam nga xale jigéen di ñu mën affaire. Mhm. su ko defee nag nga miir loo yor jox leen. ñu xëy sël mu nga bëgg a xaaj. waaw te yaa du ko sab moo tax léeg-léeg may may may def benn alerte boo xam ne di leen wax ne tey leen. kon hanche ñu ngi koy monté. non ba léegi xanaa xam ne mat mat laa xale desatul dara ndax jigéen ñi dagg nañ lépp teg seen. <laughs> mais alors affaire bi kon euh, si si album bi lay lay bokk wala da nga ko da ko jox. album bi mhm. enregistré naa ko ba pare. ba pare yii yëpp bokk ci. bokk ci yéen génnoon yooyu nga doon dégg single yëpp benn bokk ci album bi. am na yeneen morceau yoo xam ni indeeguma ko te bokk ci album bi. man damay liggéey di denc. kooku yàlla moo ko def ci man nee naa gars yi. Mhm. man. mën ngeen a wax te génne ma ci ni ngeen ma ci génnee mooy li nekk ci man yàlla moo ko def ci man du man yàlla la école de beaux arts xaw ma xaw ma fu mu féete mosoo fa jaar musique mënuma laa wax lii mooy musique ay doorey xaw ma yooyu sa new si yooyu mën na jub li may wax nit ñi di ko xam man xaw ma ay kii mooy kii. kii mooy bind bi eh, ba daam daam yow yow saa à tey jii facilité bi nga am macha allah si si si bind. parce que bind rek sax am na xam ni mën nañu bind rek mais la fait ngay teg mot par mot cest yooyu man eh, loolu eh, lan la lan lan mooy sa force lu may loolu. yàlla kenn du moom moom mi la jox xel mi ngay xalaatee te dafa am loo xam ne. Mhm. yàlla moo ko def ci jaam bi yàlla mooy fekk ki ñu naan dof la. Mhm. mu am lu mu ko laxas. nga koy daw fekk danga ko war a jege. dëgg. ndax nit a ngi xeeb nit. Mhm. fekk wàlliw la. dëgg. du ma waxuma nag maay wàlliw bi de waxuma loolu. dama nit a ngi xeeb nit fekk wàlliw la exemple lay joxe. dëgg dëgg. Mhm. mën naa ko doon sax man koo xam. te xam te doo ko xam. dëgg na nekk dëgg. yàlla sunu borom ay jaamam moom ay jaamam lañu rek de. Mhm. yàlla mooy sunu borom mais du sunu morom. xam nga man da ngeen di bind. mais xoolal yàlla mi ñuy bind moom. kon kooku mën naa def ci ñun lu ne. cellule bu nekk nit li nekk si moom yëpp. waaw te waxul kenn jàppale. très dangay xool nit. liir nga tiim ko yow mag. mu leer na leen day tollal nga noonu. dëgg. tey nga dem ba nekk yow mag. bay tiim ay liir. Mhm. loolu rek war na laa mën a may ne yàlla suñu borom kenn du moom. kenn du moom nga xool avion ca kaw. ak na mu day dara téew ko. Mhm. ñaata nit ci nekk doo ko xam. ñëpp toog avion bay naaw tonn xoolal géej ni mu day tëbal ci xeer day tëmb xoolal bato tego ca kawam xoolal asamaan ak ay biddéewam ak weer ba ca nekk ak li ko téye yàlla kuy waaye kuy ah, kenn du moom kon nag kooku nit lu mu mën ak lu mu doon ak fu mu mën a dem nag ko sante nga xam ne moom la yàlla la du nit ki nit mënul dara nit xamul dara nit nit rek la mhm. moo tax ma su ma gisee kuréel dama naan loolu moom indi maanaam nit du nit ndax nit bu doon nit lu ko dal ak lu mu ñàkk da koy sante yàlla ndax léegi gis koo xam ni da yor cent mille sax di ko xeeb naan soo tey sama journée neexul cent mille am na ko soxla téeméer amu ko nga toog tey nekk ci biti am sa liberté naan oh dafa tàng dafa war a taw mbaa mu bàyyi am ñu nekk ci prison ba prison bi yow yaa ngi naan da ngaa tàng xoola ñooñu fañ ne yow bu la neexee yow mi ne ci biti nga dem ci taatu keppaaru garab toog mais loolu sénégalais la sénégal moo mën jàmbat mais gis nga nag jàmbat googu moo ñuy lor ñun ndax da nga a sant yàlla saa su ne ndax wér gi yaram boo ko amee am nga lépp wallaahi am ñoo xam nag bu ñu amul xaalis dañuy defe ni war ñoo sant léeg-léeg nga dégg ku naan yàlla tey jii nàngam ak sàngam di teg yoo xam mu leen ne yow yaa ngi def heure bu mag taxamoo ko man moo tax yéen détails wax yii ñuy wax nii ay yaa koy teg ay affaire yooyu. doo si dugg non man sama nekk si. doo si dugg doo si dugg euh, tey euh, sa xarit Waly euh, sa rakk mu ngi waajal Genève nga am nga loo si def xaaral ñu xool ko ba pare parce que bëgg tey dama bëgg ñu dugg si bagage yi carrément daam il faut ñu dugg si bagage yi pour xool fan nga toll ak ak ak ki nga xam moom mooy musique bi waaw Waly baa ko ñu xool. Min réew Bamba ko moom réew mi Bamba moom fii ko moom Bamba ko moom réew mi Bamba moom fii ko moom Bamba ko moom réew mi Bamba moom fii ko moom la ngeen bañ donc euh, waay euh, lu tax nga parce que lan la euh, waa lii taalibe Cheikh Ahmadou Bamba la di Baye pourquoi nga commencé foofu euh, li nga xam ni moom mooy intro bi. laaj nga lu am solo. parce que man bi ma dégg loolu moom njëkk impressionné si morceau. am solo bu gisee ma jiital loolu comme ni nga ko mhm. mhm. mhm. moo tax moo jiital miim réew Bamba ko moom te loolu slogan bu bees la bu xew boo xam ni. maanaam képp kuy murit da nga koy doxantoo. lenn ni fi mu ne. maam Borom Touba dañu defal loo xam ni amuñu payam. te Waly di taalibu yu la kon foofu ma jiitalal ko loolu. mim réew Bambacounda ma ne ana ana taaliba Cheikh Ibra Fall yi Baye Fall yi yëngu Baye Fall yëngu si seen bopp ñoom waaw man tey jii dafa am benn waay wu ma lu tax dama non dafa dafa dafa bind ci benn site mu bind ne lu tax may woy waali ba pare jiital loolu xam nga am na ñoo xam ni seen dégg-dégg duñu comprendre duñu comprendre mhm. parce que tey man ñëw ma pour way sëriñ su ma doon way sëriñ beneen facette laa koy defee boo gisee ma jiital mim réew Bamba ak moom li muy taalibe Cheikh Ibra Fall ba pare loolu doon dem benn slogan boo xam ne taalib kuy taalibe da nga koy bëgg mhm. léegi moo tax ma jiital loolu tey su ma doon way sëñ bi mhm. dama koy way di ko ko tagg mhm. ki yee di way say way jur dëgg yaay way juru nàngam nàngam ak sàngam man bañ naa ko booy way sëriñ ci boîte sax damay mer man damay mer billaay damay mer ndax maanaam métier bi ñuy def aar la mais musique dafa doon loo xam dama doon wax naan sama waa ji yaa ma jig naa la ubbil boutique nga fay déglu musique ndax gaañ dañu mystique fexeel ba ni nga physique te dem jàng arithmétique. Mm-hmm. musique dafa doon lu doy waar. dafa doy waar ndax tey bind ñu ko ci benn téere ne musique baax na. Mm-hmm. kon nag ñun ñu koy def war nañ jaamu yàlla. Mm-hmm. ba pare li ñuy def. li ci am ñu ci jaamuwaale yàlla ci jaamam yi. Ah, absolument surtout parce que loolu la soxla musique kenn mënu koo baaxal. ñu ngi koy def na amaana xëy na yàlla suñu borom mooñ ci xiir mu doon benn destin bu ñu war a jaar jàll la jaar jàll la rek man da jaar jàll laa ko jàppi man jaar jàll laa ko jàppi xëy na nag yàlla moo ne kii dina def musique dina am lu mu war a wax ba pare doog a dem defi leneen ak leneen xaw ma lu may dooni ëllëg nag yàlla moo xam yàlla rek ko xam sa relation ak Wally lan la ba ba tey ji nga war ko gunge si Genève bi waaw jàmm man relation maam ak Wally relation jàmm la ak salaam mhm. mu doon nit ku baax vraiment wax dëgg yàlla bëggal ma boppam man forcé wu ma ko sama bopp déedéet man du ma force sama bopp kenn ndax man dama liggéey li ma am ba tax te ma war a xam Waly war a xam Pape Diouf war a xam Youssou war a xam Omar Pène Baba Maal Thione sekkat ñoom ñëpp képp ku def musique war naa la mën a xam ndax liggéey naa loo xam ne fi mu ne nii tax na ma xam la jàppanteeg ñëpp nag man benn musicien bañu benn musicien bañu man ñëpp ma bëgg. tey jii ku ma dem sa seen tey yéeg da ngay kontaan. ndax la ma la ak la ma lay euh, apporté la Youssou Ndour. si euh, foire bi benn soirée am. nga non la ma lay la ma lay indil la man déggoo li ma li nekk ci man. Mhm. man est-ce que am na ci keneen ku mu ne. yaakaaruma ko. man de dama toog yàgg naa waa man mii te maa yem man dama ko wax sama bopp. ndeysaan ndeysaan te doo ci mën dara. li ñëw di génn doo ko xam doo xam lan la. lan la da ngay bind est-ce que da ngay bind denc comme gars yi nu def wala yow affaire bi fii lay nekk lan nag. non boobu bi moom boobu bi ni nga gisee nii. moo tax xoola ah. loo may wax boo yeboo nga wax ko keneen. ndax ndax li ñëw si bopp bi dafay gaaw barki Serigne Touba. rawal rawal day ñëw nii. sempre day ñëw. xam nga léegi nag waaye doon koo xam ne. nit ku woyof la nit ku baax la xol bu set bi mu yor xam nga doon taalibe baax bëgg nit moom dafa yàqam ñu jéeg ci seenam sax mu taal la kooku yàlla boole ma ak moom moo tax ma fonk ko morceau soo gisee ma def ko moom africain ndigal ok africain ndigal yéeli cuun nga xam moom moo ko moo ko jiite moom moo produire morceau bi fekk ma amoon idée bi te affaire Genève bi yéeli ñu toog ci waxtaan mu jël xaalisam dugg studio fay lépp moo ko fay man sama dërëm demu ci transport moo leen jëlee Thiès dama indi Dakar sa yéeli moo ma ko doon jox ba ba may ñibbi bañ defee vidéo ba pare yëkkati xaalis bu jox ma man lii sax maanaam man séntu ko ci woon séntu ko ci kon morceau bi doon na loo xam ni doon na lu rëy kon nag waaw nu ñuy def ah, foog ah, ñu waaj waaw di ñaan yàlla rek ñu fekk ko tey ak jàmm tal ko xam nga mooy loolu daal. fa ñuy taxaw ma nag moom mooy si musique sénégalaise li ngay def keneen di ko def mais ñu ñëw si li ngeen def sax muy taasu bi euh, est-ce que euh, gars yi ñu ngi ñu ngi assuré su ma nee ñu ngi assuré est-ce que euh, la taxoon jóg taasu dëgg dëgg dëgg dëgg mooy alerter avertir dénoncer est-ce que ba tey yaa ngi koy sentir mu ñu gisee ni tey rythme bi wala ambiance bi la gars yi gën a farataal. am na ñu koy def. am na ñoo xam message bi ñu ngi koy lancé. ñu koy lancé am taasu dafa am lu ci laxasu. taasu lu ci laxasu. taasu dafa am lu ci laxasu métier moo gis am na lu ci laxasu. ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne wàllu yi lay def nga koy defandoog moom. mu daq laa daaj foog nga gën ko caa avancé. loolu am na. jour signé na te dara. taasu ko taasu na. te mënul leen woykat woy na te mënul dara <laughs> basketteur bi mën naa dëng dàqale ji ñëpp yaa ngi dégg yàlla moo noppi moo def lépp def ko nii ku ci nekk nag taasu dafa doon maam aar la aar <coughs> pardon aar dafa doon loo xam dafa yaatu mënoo limité nit non mukk ko ndax kenn moom ko moomu ko ku yor sa xaalis dem fay sa studio woo say musicien ku naan la doo leen fay joxuma la ko duma la ko tere sama pàpp moom ko sama yaay moom ko nit ñi nag am nañ droit déglu ku leen neex tey jii ngay xumbal am na ñu bëgg xumbal am na ñoo xam ne rëng tëng rëng bruit da leen ni sonnal bëgguñu loolu il préfère déglu benn waajoo xam ni li muy wax xam nañ ko ba pare bruit ba bariwul am na ñoo xam nag baara mbay da leen ni daaneel ay ceebu jën ak ay ñaari gorom te léeg-léeg léeg-léeg fa foofu loolu day am lu mu mottali am na foo xam tamit boo fa tollee foog nga soxla baara mbay am na foo xam boo fa tollee foog nga soxla ku naan ah dama ne di ko wax ndànk xam la la arrangé mais daam da ngay da nga commencé da ngay saral quoi xam nga non eh non laalal gars yi quoi fa faut faut il faut que laal gars yi maanaam tey maanaam am na ñi nga xam aussi tamit wax dëgg yàlla tamit dañuy xajamal aussi non dégguma dafa am lu ci laxasu ah, dafa am lu ci laxasu parce que tey jii ñi daan jënd tey ñooy jaay. ñi daan maye. ñooy ñaan ñi da daan téel say godaas. tey ñooy bokk ak yow terrain ñu naan la marquage à la kilote ñu damm la léegi doo signé. loolu laa lay moo tax ma dafa am lu ci laxasu. dégg nga laxasu boobu dafa am lu mu ëmb lu bëri. te xam nga eh, boo demee dibiteri fekk fa ay nit ñu toog nga nga rusa wax jaay ma jaay ma laxas da nga naan jaay ma lëmas. dëgg waaw waaw. <laughs> xam nga am ak am noo koy kiiwee. <laughs> wala lëmas ak laxas mais li nga wax ne dafa am solo am na ñoo xam ne dañ doon teel godaas léegi ñoo yéen a bokk tànn bi tey gis nañu tey ay feccikat yi nga xam ne léegi ñëpp ñëppay daasu ba pare nag kaay wax la benn affaire nag mm-hmm. ñëw nag mel nii nag mm-hmm. ay ay gaynde sa kaw <laughs> mais loolu lépp rek moo tax gis nga ku am talent moo mm-hmm. wóor liggéey ku mën a ñëw bu la fa fekkee yow da ngay toog sa place ba nga toog ngay toog don merci bu ñëwee kay dana la saa waay macatu mbaa ma toog suuf rek <laughs> amul sax ma dem te ñëw. Euh, naka naka nga gisee euh, euh, musique bi musique sénégalaise. waaw musique bi man su ma déggee gars yi naan doxul. Mhm. man damay damay tiit mais musique mi ngi dox. mi ngi dox parce que booy xool ku ci nekk sa wërsëg rek ngay lekk. Mhm. si. mais Dame est-ce que kon est-ce que yow li nga ciy va li nga nga ciy dem macha allah li nga ciy am oto wala am si leneen yeneen moo tax nga mi ngi dox. non mi ngi dox. maa ngi sant man man de maa ngi sant am waaw ah. xam nga ku ko am ku ko mm. ko am. ah am am na ñoo xam dañuy yàkkamte rek mais. yàllaa ngi ñëw. ngi ñëw man mii tolloon naa ay moment yoo xam aw ma woon kër aw oto. aw ma yëre yu ma sol ay seetaan laa ay mbaaj ak lu ne sol naa ko ay ñàgg ak ay ay dërëm yaay. mais tey su ma demee tey bay sol ay jees ne rek nangam sax dafa dafa jot mooy koy sol. Mhm. mais am na musiciens yu bëri yoo xam tey jii ñu ngi sol ay costume yu cher. Mhm. boo leen arrêté seen carrière ci ginnaaw tuuti. c'est yéé buñ sañsee nga daw sañse daaw ya c'est vrai ak daawaat jéegi ak daawaataati jéegi kuñ ko génneel ren <laughs> nga xam ni lépp dëgg la mais <laughs> yàlla nag moom mooy seddee noonu mhm. am na ñoo xam da leen di suulaale ak seen talent kenn du leen xam kenn du leen xam te leer na la leer yàlla ni yow mhm. la ma waxoon ne bu nee la yaa fi mën mhm. ne li ma xew a tax yaa fi mën buñ la ko waxee ne li ma xew a tax ndax am na ñoo xam tey nombre de buts yéen yóbbaale joueurs yoo xam nombre de buts yéen deewaale. Mhm. bu leen indiwaatoon tey. Mhm. duñ toog ba dañoo takk barasa équipe bi. loolu am na ñoo xam ni nombre de album yéen yóbbu bu leen indiwaatoon tey jii. booy duñu way. non kenn du way. Mhm. am na ñoo yow nag daam lay jey naan la yaa fi dàq am na ñoo xam ne répertoire ba ñu yóbbu xaju ci armoire boo ubbee sa tiroir doo gis moo tax ñu créé carte mémoire. <laughs> affaire dafa grave léegi euh, ñu ñëw si li nga xam mooy album bi c'est vrai que bëggoo bëggoo si wax enfin bëggoo wax kañ lay pare kañ lay génn ak yooyu gars yi mooy loolu naa nit mu ngi ñëw rek mi ngi ñëw mën nga ñu wax ñaata ñaata ñaata morceau nga si prévoir waaw euh, est-ce que am na ñeneen ñoo si invité euh, wan wax ñu tuuti gis nga morceau yi mhm. am na huit huit huit titres ok mu ngi ñëw wax ay titres moom grave. Mm, ok d'accord titres yi moom. Mm. da tiital waaye. waaw ah, si thème yi thème yi wax ñu si titres yi tuuti. waaw si yan thème ngay nga nga. waaw loolu nag gis nga ni ma gisee nii. Mm-hmm. tey jii li ma génne lu ma génne. Mm-hmm. doomu aadama nañ ci kon na ndax tem ya ciy biir mooy garab. jigéen ñi am nañ ci wàll. Mm-hmm. góor ñi am ci wàll. mag ñi am ci wàll. xale yi ndaw yi am ci wàll ku ne am nga ci wàll. te am na ci ay ñu ma ci invité ñoo xam ne ku mel ni booy Madiagne sama benn booy bu mën a way Madiagne Sidi Diop mii di toj àdduna bi nii mhm, mhm. album boobu ba ma ko ba ma ko enregistré xam nga am na ñaataat fi mu ne ñaataat deux ans nangam boobu xew boobu xewul Sidi boobu kenn daa xam koy kenn xamu ko boobu boo boo déggee Sidi da laal say Sidi boobu boo déggee Sidi da ngaa laal say Sidi <laughs> voilà dégg ngeen daal boobu Sidi xewagul xewagul ay pas bool leeg yëpp ci biir ah loolu loolu loolu Sidi Diop way ci ay morceaux yu garaaw boobu booy bi kenn xamu ko moom tax am na benn kii bu ñu bokk benn nu mu tudd waay benn soirée bu ma demoon soirée ok def benn live man ak moom mu ko ci wax naan kii ba mu may invité si morceau kenn xamul ma nekk kër Ibba Sey mu woo ma téléphone ni ma Sidi dama laa soxla sama morceau bi mu ñëw woy ci boobu kenn xamul ko morceau bu génn gul laa naka nga ko gisee moom booy boobu Sidi non Sidi beneen affaire ak fëllam non beneen affaire la kon yow bettu la woon yow mi ko woyloo avant avant non booy man fekk naa ko studio euh, benn waay bu ñuy wax lamp muy enris muy muy ci kaw ma wàcc ni leen booy bi ma gis ci kaw fi muy répété hmm. kii de xam naa fu mu màgg boobu temps dayul sax nii ndeysaan boobu amul sax benn kii bii nii moo fekk ma groupe am ay booy ndaw ñuy joué di répété ma ñëw fekk maa ngi ci studio bi di enregistré man leen baax na booy ki ma àndal man ko booy bi ma fekk fii ci kaw hmm. dina toj dëkk bi de voilà mu ngi toj dëkk bi moom Sidy Diop ñu de passage euh, ñu jeexal ak réew mi Euh, c'est vrai que yéen ay acteur maanaam euh, acteur culturel ngeen c'est vrai mais porteur de voix ngeen euh, réew mi ñu ngi jëm ci élection naka nga ko gisee d'abord naka nga gisee réew mi instant bi ak élection yi ñu jëm la ban appel ngay lancé di ñaan yàlla def ci jàmm mm-hmm. di ñaan yàlla def ci jàmm di ñaan yàlla def ci jàmm te di xamal nii nit ñi mm-hmm. nañ nekk ay nit mm-hmm. ndax nit yàllaa ko sàkk def ko muy nit nit bokkul ak mala yàlla def na nit loo xam ne deful ko kenn kon nag nit na nekk nit ndax muy élection muy lenn ak leneen te ji àdduna bi ñu ne dafay jeex lu dul jeex amul kon nag lépp lu nit di def na ca bàyyi xel sóor ca yàlla sunu borom sóor ci ne yow yaag say moroom yéen a ko bokk di def te nit ki foo ne am na ko fa nekkoon gu wuutu ko te di nga fa mës a jóg keneen ñëw toog doomu aadama nag war naa bàyyi xel ne lépp looy def. muy jongante ak lu mu mën a doon. jàpp ne mën ngaa am victoire mën ngaa bañ a am victoire. ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci ginnaaw ñuy jongante ñoom it nañ nekk nit te xam ne ci ginnaaw ka nga topp bul nangu kooku gën la. gën la bul nangu kooku gën laa nite. parce que tamit mënuma concevoir man nga topp ci ginnaaw nit muy sañse doo sañse ngay ñàkk tooy xepp topp ci ginnaaw yor ay yet naag di sànni ay xeer da koo jarul jarul ko moom nga koy nga koy couvrir kenn du ko jam kenn du ko xaaj du fakka salu yow ñu lay jam di la xaaj ngay nga sonna say waay jur nañu muus nañu yeewu te topp seen ginnaaw jàppale leen te yàlla tax ku ci nekk nañu boole lépp boole xol yi nañ boole xol yi te bokk ndey ak baay bu ko defee yàlla jàppale bu Sénégal jëm kanam jël paix nañu booloo nañu mànkoo yooyu amee élection ku nekk dem votel ku la neex soo paree ñibbi sa kër tranquillement boo ñibbee ku gañee nga xam ne yàlla suñu borom noppi na fii ku ne jaar na fi président bu ne jaar na fi football la ngi nii pëlee mille buts la fi dugal mhm. kenn dugalagul mille buts mais ak ñii ñëw tey jii déggatoo waxi pëlee te pëlee wàllam wéy na ku nekk ak sa temps mhm. yaa ngi dégg mhm. comme musique rek fu ne nii xale yaa ngi tëj dëkk bi mag ñi xam nañ loolu. xale yaa ngi leen di sonn aussi yéen tamit. man xale bu ma jege ma ne rek man. man <laughs> man damay uuf xale yi. ah da leen uuf non dama leen uuf man xale du xeex ak man. Mhm. ndax bu xeex man dinaa la gaañ ndax denc naa loo xam ni bu ma la ko xëppee day mel ni asib ci bët da ngay gumba xale du xeex ak man mais ku ñëw. Mhm. am yar moo tax gis nga gis yar ak ab lu la may leen du ko may. Eh, am na xale yu topp si yéen tey taasu ndax am na koo si remarqué nga ni kii daal macha allah lu bëri na bëri na am na ay booy yu garaaw booy yu aay mais nañ tey rek affaire yi jarul yàkkamti te am na gis naa ci ay booy yoo xam bu ñu teyee bañ a yàkkamti mhm. gën a liggéey billaay waxuma la ñoom daam seen ñun ñii sax après kenn dootuñu xalaat kenn dootuñu wax parce que ñun bañ fi ñëwee dañu am ñun fi fekk absolument ñu ñu ñeneen dinañ ñu fi fekk puus ñu nee ñu xajal leen par force xam lu xam lu bon mhm. toog na du ma jóg fii non da ngay di nga dem ba di nga surux mbaa nga nelaw ñu yëkkati la ndànk tegee nee. nga rus nag. nga rus euh, kon nag euh, defe naa ni euh, lu am solo la wax muy message bi nga xam ne lancé na ko moom daam seen à l'endroit des Sénégalais ak ñi nga xam ñooy def politique ak ñi nga xam vraiment ñoo topp si gannaaw ñi nga xam ñoo jiite tamit ñu bàyyi xel ni lépp temps la mais ku nekk tamit sama bopp ma la gënal du bañ naa la donc loolu c'est important. ñu def lépp si jàmm ak salaam ñu teg lépp si yoon également tamit ndax tamit fagaru moo gën faju euh, daam euh, loo ñuy may si riim loo ñuy may si si si si li benn message bi nga xam da nga da nga ñu koy kebatul bu ko defee euh, soppe yi kontaan. waaw avant loolu. Mhm. may gërëm waa Thiès. bu baax fa ma dëkk. ndax man amul lu Thiès amul lu ko ëpp. mun man dégg déggu ñu naan Cees kaay benn dëkk ñaari gaar. ñaari gaar man maay troisième gaar bi. man maay seen koo xam ni. Mhm. maa leen représenté partout dans le moom fu mu mën a doon nag. man lañ ci yaakaar wóolu ma ci. suñu borom nag di ma kàttanal. Mhm. ak Serigne Saliou Touré sama way jur mhm. ba maanaam fu ma taxaw wax ñu kontaan. kon loolu maa ngi koy sante waa Cees bu baax a baax. rawatina sama koñ ba ma dëkk muy jaxaw. sant ñi nga xam ñoo may jàppale tamit. parce que tamit kenn mënta dem te jàppaloon la. téléphone bi boo ko jëloon tey pour brancher ko fee bu lu woon prise B. ak mm-hmm. chargeur. du sotti nooy amee baar. du am baar mi ngi noonu. Mm-hmm. kon nag mel ni Cheikh Kanté bi nga xam ne day décanté du la escanté. Mm-hmm. léegi man moom dama koy fréquenté. Ah. maa la ko wax. kon fréquenté ko daa am njëriñ ku yëkkati oto may la ko. wax dëgg yàlla di la nemmee ko. loo xewle woo ko ñëw ca taxaw ca. kooku mënoo def dara fàtte ko. ku mel ni ab Ablaye Dieye borom mm. siggi jot na mm. léegi suma jox damay teen siggi naa léegi ndax Ablaye Dieye damaa sëggoon mais léegi damaa siggi ci xocc ndax Ablaye Dieye borom siggi jot na ku mel ni Tidiane borom Canada oto bi ma gaare fii gis ko ko gis naa ko TH bi gis laa dem mm-hmm. nit yëkkati ko may ma ko muy Tidiane doon nit bu baax ah, loolu rafet na ma ñëw Canada moo ne ni kii mm-hmm. ñu ko fi indi nañ ko jox xaalisam buñ ko jox xaalisam mu jën ci oto ma la naa nga sàngam mais dafa ne oto bi ngay dawal senegal boo demee man maa la koy jox bëgg nga ma wane oto bi. non oto bi. maa ngi koy nga garaawul jarul wane. man daa xam nga lu ma ku ma ko wane fi mu ne nii. dama ba xam xam naa dugg àjjana ah, ah, xam naa ne moom damay dem groupe Rasu Média. non ak sëñ Sall Touré sax xam naa damay dem. su ma su ma dugg àjjana laa bëggoon ngeen filmé ko aw ma fayam moom it mhm. Mouhamed mhm. ay docteur Ndiaye ñooñu aw ma seen fayam moom jabaram mënu ma leen a fay dafa am nit ñoo xam ne dañ lay jàppale doo leen mën a fay kon na ñooñu amoo lu dul ñëw toog ci télé wax ak àdduna bi yëpp ñu dégg ko. ay adjudant Diop ay comme euh, capitaine Kaam. Mm-hmm. ñooñu aw ma man aw ma seen fay man ñu may jàppale ñëpp ku lim dangay ngay juum sax. mais dafa am ñi ñoo xam bu ñëwee sa bopp fangoo ko góor gi Bakar Diagne. Mm-hmm. ko nga xam ne dafa dégg ma naan. oh bur yàlla maa ngi lay ñaan sama yaay dem Maka bu déwénee def ko vidéo mu seetaan ko paa bi de toog di ko seetaan ne waa kii fekk sama xaritu papa loolu bu yàgg mu yónni rakk dina ko demal ca yaayam ne ko dinaa yóbbu yaayam ren Maka noonu mu seetaane clip bi maire bi di ñëw ci kër ga ñëw ne ma na nga def fekk juste may génn mun ma man ko maa ngi fi maire mun ma an sa yaay man ko sama yaay est-ce que newu ci biir yow daal sa papa Bakar daal sa bi la seetaan rek nga ni de da am yéene yóbbu sa yaay màkk neen dina ko yóbbu ren te man bu déwénee laa wax de ndaka ceereen nga la sama yaay dem màkk kooku da dinaa def dara fàtte wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ku dul euh, gërëm nit doo sant mais très bien il faut ñuy gërëm ak mbocco mbocco gu sew gi nga xam ne ay ñoom Njaay Teraangaak mbocco mbocco yi sa ay Ibou sama tailleur Xaadim Saaxo ñooñu noonu mënu ma leen a bañ a gërëm billaay billaay ñu ngi ci jàpp bu baax a baax baax ñu ngi ci jàpp voilà daam ñu bàyyi la rek nga euh, may ñu dara may ñu dara yow xam nga say rim duñ si doyal la nga la nga ubbee euh, doyoon na émission mais amoon loo loo tëjee waaw xanaa ñu naan original Dame Sène ngi ni wa yegg si seen ak yeneen i fem newoon naa leen samay rim dinaa ci am prime du ma ci def benn crime kummiim laajal Abdou Karim liiru siiru ba doon xiiru ko ñoom basiru maa ko rey ko ñoom miniru man si ñoor du ma takk tuba ju amul ñoor du lekk diw ñoor du ma takk or ba tax na depuis loor la joor ànd ak maajoor ñu poor foor sol ay adoor maajoor sob di gàtt bitéelu diw ñoor mu diis muy def effort dem école la joor naan je suis fort élève naan ko soor mu naan j'ai tort waaye bu koor ñëwee maa ngi moo yëpp ay woor boo may sarax naan ma jox naaq baal ma àq bañ maa ci bàq maa ngi dàq kuy fay luy tàq sama yére dafa gàq ma jàq làq ko ci pàq ànd ak kàq ñu may dàq ma yëg ci branche fàq di dóori ràq kooku maa ngi koy may Habib Kane borom Thiès Habib Kane Habib Kane mooy borom Thiès fi mu ne nii mooy borom Thiès fi mu ne ana ana ana ba ba nga xaati moon di xuuxal gars yi ak ak donc di nuyu sama xarit ba Fall Ndiaga cees gi donc Ndiaga Fall donc loolu tam dafa solo daam ñu ngi lay jaajëfal di la remercier si sa teewaay également ak sa disponibilité Thiès nga jógee ba Ndakaaru rien que pour soppe yi ak tamit euh, vraiment ñëw seet si fi nga xam moom mooy groupe Rasoul Média ñu ngi lay sant la gërëm euh, noonu rek na leen di santé di leen gërëm di nuyu ñëpp ñi nga xam rek ay soppeem la ñu nekk si àdduna wërngal képp également ñi ñu doon topp également tamit euh, si li nga xam moom mooy kanu kër gi ci dakar info point net ñu leen di jëfal jaajëfal dig leen daje daje beneen yoon rek ak beneen daanaan incha allah. néegu leen ma ba ma tàyyi ngeen soog a def lu baax noblesse tayé.